gan gi nga xamante ne nii yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko jël jox ko xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te muy weeru koor di leen wax ramadan karim yàlla nañu yàlla nangul suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy bakkaar yàlla dafa wax wax ju am solo nee na maa leen jox koor ngir ngeen ragal yàlla ngir ngeen am ak ragal yàlla ndaxte ragal yàlla yonent yëpp moom lañu ñu woote yonent yàlla Nuux yonent yàlla Huut yonent yàlla eh, Ilias yonent yëpp ba ci yonent bi salaa salaam ci ragal yàlla la doon woote. yaa ngi dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw yàlla subhanahu wa ta'ala jox ko li nga xamante ni moom mooy weeru koor wi nga xamante ni moom moo ñuy may ak ragal yàlla subhanahu wa ta'ala ndaxte ragal yàlla ku rëcc ci nga rëcce waaye tamit. képp ku am àjjana ragal yàlla moom moo la ko may bi taqwallahi naja man naja wa faaza wa saara ila ma raja wa man yattaqillaha yaj'al lahu kama qaala min amrihi maxraja kon mbokk yi teddaange nekkul ci alal ju bari teddaange nekkul ci am kër yu bari wala oto yu bari wala soxna yu bari wala doom yu bari déedéet teddaange dëgg mu ngi nekk ci ragal yàlla subhanahu wa taala moo tax boo ko ragalee rek yow am nga teddaange gi nga xamante ne nii doomu aadama moom la war a am fii ci àdduna am ko fi nga xamante ne nii moom moo di ca àllaaxira benn borom bu mag ñu koy wax xasanul nee na yàlla moom moo jël weeru koor def ko mu nekk benn arène boo xamante ne nii ñu jullit ñëpp dañ ciy wàcc war a bëre nee góor ñi góorgóorlu entraîné bu baax ñooñu ñooy daan waaye nee na ñi nga xamante ne ni dañoo sàggan ñooñu la ñuy daan te ña daan ñoom am li nga xamante ne moom moo di yërmande yàlla ngërëmal yàlla subhanahu wa taala inna allaha jaala chahra ramadana midmaaran li xalqi fa tasaabaqu fiihi bi taatihi ila mardaati fa sabaqa qawmun fa faazu wa taxallafa axaruuna fa xaabu loolu la xasanul basri wax kon mbokk yi suñu bis ci li nga xamante ne weeru koor gi liñ leen di jox ka yóbbal moom mooy ñu ragal yàlla subhanahu wa taala parce que yàlla nee na maa leen jox koor ngir ngeen ragal ko yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun xam naa si bii di ñëw dinañ leen xamal ana lan moom mooy ragal yàlla wala yan mandarga mooy yi nga xamante ni ku mu nekk ci yow kooka ku ragal la yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala lu fi dëng ñu xam ne ci man la leeral moom moo ñu taxawoon a jug wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.